Euh, muy euh, ñaari boutique yoo xam ne rek ci li ñu wax ñooy doon concurrence ci wàllu jaaytu si euh, concurrence boobu nag dem dem dem ba ëpp loxo ba nag indi xeex xeex bi nu mu demee nee nañu seen benn doom mooy liggéey ci benn boutique bi ba tax na rek yëf yi indi ay jalousie euh, ba xeex am ci xeex bi mu ci amee nag euh, mu am ay gaañu gaañu yu bëree bëri bëri ni mu demee dañ leen di bàyyi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dundu ñu daal di koy euh, expliquer naka la demee Ndeye saw nuyu naa la ma bàyyi la nga nuyoo. fay naa la sant bi Ndeye Sow Saabali. Mhm. man maa yaayu Dame Diop. daam Diop waaw ci àllarba bi avant histoire bi am. Mhm. ci àllarba bi daje nañu. yéen yéen a ngi fii ci marché bu bees. ci marché jàkkaarloo ak ñaari boutique yuy jaay ci suuf. Euh, ci loolu la indi euh, li nga xam ne rek mooy histoire bi naka la demee au bi balaa ñuy wax ci àllarba beeg euh, alxames au début bi ba bitig bi sampoo mhm. jël ma pour ma jaayal leen mhm. ma ne leen man mënumaa dugg ci bitig naan maa ngi jaay dama dama sama liggéey boobu man 2006 ba léegi maa ngi jaay jën ku ma xam si jaay jën nga ma xamee. Mm-hmm. ku ma jaay ku ma xam si jaay vaisselle nga ma xamee. Mm-hmm. ndax euh, dama nekk xale boo xam ne maa teel a ñàkk waajur sama yaay ci foto laa ko xamee. Mm-hmm. ma nekk 2010 ki ma yoroon gaañu muy sama bàjjan. ma dund lu métti su fekkee métti sama borom kër loxoom jotul ginnaaw day garder mooy garder place yi nekk fii yëpp. waaye sama taaw lu mu am ñu may dimbali. ñëw ma kenn. sama deuxième doom mu ci géej lu mu am mi ngi may dimbali ñëw ma kenn ba ma borom biti bi proposé liggéey bi ma ne ko man du ma liggéey du ma kenn man sama liggéey bopp liggéey jamono di dox mu ne ma ma ne am naa doom bu góor boo xam ni mun naa leen koo jox mu liggéeyal leen. Mm, mooy ki la wax pour nga liggéeyal. waaw te boobu place moo fi jiitu place bi fuuf. Mm-hmm. ma jël sama doom jox ko ko. Mm-hmm. mu ñaata laa koy fay weer ma ne ko sa doom la sa jarbaat la ma la àppal loo koy fay. loo ko jox ma xam ne loolu la ko yàlla war a séddalee premier salaire bi ñu ko njëkk a jox dañoo ñëw ba ci man ñu koy jox temps sama xol sedd ci sama xol neex ci. te kon naa dinaa dund ba ba toll nii. te doom du fayeeku salaire sama xol sedd ci guy. Mm-hmm. premier salaire la ma ne ko soxla ma ci dara ma dina ko ci téléphone bi de 60 000. laa ko jënd muy téléphone mu ne ma yaay déedéet ma ne ko sa morom yëpp yor nañ téléphone dama nga jënd téléphone ndax yaa ko liggéey boobu bëgg nga ko jëndal taaw ma ma rocci woon sama prise jox ko sama simple mm-hmm. man amoo fu ma wuyoo premier sala la ma jënd ko si téléphone dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem dem di dem dem ba borom bitig bi ci boppam beneen bitig bi fi njëkk a samp mm-hmm. man woo na ma téléphone bokkul ak ci bi sa doom di liggéey sama doom di liggéey mm-hmm. avant concurrence bi mu commencé am première fois bi njëkkee lal man la woo dañoo bëgg mu ñu may ñu fii may la ma jëluma risque bi man nee naa ko jëluma risque bi. maanaam pour lal. pour lal. ah ci seen bu sama doom di liggéey man lañ ñëw ne ma leen jëluma risque bi. waaw ñu ne ah may leen waaw. ma fii moom ma fi kër gi aw ma sama yaay gaañ bu yàgg boo leen demee nag waxtaan ak kilifa yi ngeen woo mairie mairie bu leen mayee yéen la. Mhm. ñu dem ànd ak mairie ñëw fi waxtaan ak sama nijaay sama nijaay bi xamal leen ni leen man jëluma risque may leen ndax man moom ma tali. Mhm. ñu ànd ak mairie mairie maa ngi taxaw mairie daggal ak commandant bi daggal leen première bi ma njëkk mu woo ma amul ku ko taxawal fii man la woo dama fay journée cinq mille na dem naa ba amatuma moyen bu ma liggéeyee. liggéey yàqu na jaay jën léegi yàqu na. bu ma xëy war a yor junni sax du ma ko am. xëy mu téléphone. na ma kaay damaa ni lay fay journée 5000 man ma yor ay njaboot mu may fay journée 5000 est-ce que arrangé na ma. waaye boo bëggee liggéey rek njaboot tax ngay liggéey première bi ma xëy ñu fay ma 5000 ñu ma 5000 bi ñu ma fayee 5000 ñu xëyaat war a lal ci la scandale àllarba bi ci suba gi bi saaga nday laa am ma daay dem sama sër bi toogoon fi doon wax léegi daadu di pont mu ñëw ko moom mu fekk ji borom place bu ci dépôt expliqué ko cas bi mu ne ko man xaw ma ni woon ci famille boobu nga bokk ndax sama sœur bi doon na ko ràng ay bagages yoo xam ne pour tabax këram ndax sama sœur bi mu njëkk dem mooy suñu taal moom lañ gis mu expliqué ko na ko xale bi liggéeyee fii chaque jour dañ koy sonal di sonal yaayam mu na ko ah dinaa wax ak ñoom ci alxames bi ma xëy toog ci buntu place bi toog def nii ñoom ci ñoom ci boppam. am na kuñ naan fàllu moo jiital ki ma saaga ba fii ne ko kii bu dara war ngeen koo jàpp ndax seen safar day futteeku toggal leen te du leen laaj fukki dërëm seen safar day futteeku toggal leen te du leen ñaar ñaa ñaar xale bi ma saaga ma jox na ma loxo ci suuf bu ne ma baal ma àq. ci ginnaaw ba fi sa sœur demee dox. ba demee. Mhm. ma ko baal naa la àq. ñu mhm. bàyyi cinq heures maa bi ma lal naa sama jaay di jaay dañoo yàq sama jaay. te jour boobu li ma jaay ma dama ko lebi jaay ko war a wàcc su ma wàccee versé foofu 1200. ñu mhm. jox ma financement. boobu loo doon jaay. maa ngi jaay fiiri lakk jën. Hmm. ak ay ginaar. bokkul da ngaa mujjee bàyyi jaay tissu. bàyyi jaay tissu bi. Mhm. ne naa delluwaat sama lakk jën bi ci àllarba alxames. ah ndax ñaari boutique yi ni ñu jubóowul ndax ñaari ñu jubóowul. Mhm. ñu woo ma ne ma ñëw xëy si biir place mooy leen xëy suudu ma. bàyyi la ma ma toog si sama lakk jën bi ak sama fiiri bi lu ma ci am ma xam ne yàlla. te ñu ngi la ci doon may fay journée 5000. 5000 francs lañ ma doon fay journée. ma daal di xëy defar lakk jën bi sama doom bu xees bi toog di jaay sama tension bi wàcc ma dugg ci néeg bi na xaaral ma dallu lu ma tëddee dallu yuuxu yi laa dégg yuuxu ki ñu xaañ laa dégg wuy génn leen ñu ngi rey daam wuy génn leen ñu ngi rey daam damaa ñu fekk sama doom daa tëdd moom daam moom daam ku ne di dóor xolu nday ak doom ak a soree sidit la man tëb naa jàpp ki dóor daam mu tourné dóor maare si sala sama loxo bi rëqee nii sama rakk bi jaay ma daal ne ko lu tax mu def lii yaa doomam ngeen di def nii ñu mais ki ñu xaañ nii lan la ci. ki ñu xaañ ak ki ñu téye. moom moo woote si moo woote si. Ah, dañuy dem déglu ko moom ci témoignage léegi lay doon euh, sur la 7TV. maa Khadija ñu dem déglu ko léegi léegi mu wax ñu naka la ko dundee ndax euh, gaañu bi garaaw na euh, ñu xool ko léegi léegi si témoignage daal di soit ci waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. waaw dafa am ñaari bitig yoo mais eh, man kër gi jàkkaarloo sa dëgguma dëkkuma foofu mais dafa am sama benn frère boo xam ne day liggéey si beneen boutique bi beneen boutique bi muy liggéey moom mujjee tijji foofu léegi bi muy liggéeyee foofu beneen boutique moom mënul supporter suñu sama frère boobu lu tax muy liggéeyee fële te kee dafa jël ay employé am comme moom ni mu jëlee ay employé moom su fekkoon loolu bu fekkoon bëgg na euh, sama frère bi ñëw si moom mënoon na koo jël avant moo gën mu bàyyi ndax ku nekk dangaa bëgg liggéey instant yi jamono ñëpp liggéey la ñu bëgg léegi nag buñ toogee fële ñoom dañ koy joor di ko saaga ay ndey di ko def lu nekk léegi un jour nag ñee ñëw si biir kër gi fii sama kër maam ñu ñaan si pour dañoo bëggoon lal si buntu kër gi ñun leen fii ñun moomuñu ko mairie moo ko moom soo leen bëggee dangeen di dem ngeen daggalu ngeen jaay léegi mairie daggal leen mairie bi ñu leen daggalee ñiy lal nag fële nale di jaay léegi bi ñuy jaay ne le tamit jógee fële ñëw di xëccoo ak ñoom nee na ñoom dañuy lal fii par la force ñii bi ñu gaaree seen oto fii ñu taxaw si kaw oto bi di di yëngal oto jàmbur bi ba toj otoom bi léegi nag euh, sama fereer bi daam ñëw ñoom fi muy jaayee lañ ko fekk léegi ñu daat koy xëcce biñ ko xëccee ñu koy dóor pompe ko à mu tëdd ñu koy sot léegi biñ koy sot noonu man ma yem si juste ma jógee sunu kër man ma yem si bi ma si yemee ma dugg fekk ñi toog di sees di naan seen attaaya maw ma wax leen ko ni leen yéen a ngi fii toog mais ñoo ngi sot daam bi ma duggee noonu sama benn sœur dafa bëggoon dem léegi bi muy dem ma dama ko bumax mu daanu si territoire bi ma dem parce que góor ak jigéen duñu xeex waaw ah, ñun ñi mënuñu góor ñee nga xam ne ay mbër lañ teg si ñooñu liggéeyal si place bi ay nervi lañ ñu jël leen andi leen fii pour ñu xeex kon xeex bi dalay leer na ñoom dañu koo préparé léegi sama sama sœur mu ko bumaxee dem di woo sama beneen rakk sama rakk boobu bi may dem di ko dama koo fekk ñu dóor ko ba koy xaañ ay birig si digg ginnaaw bi léegi man ma di ñëw mooy sebel ku xees ki dafa liggéey dañ koo dóor ba xaañ ko ay birig léegi man bi ma koy woo noonu pour mu ñëw am ay tissu yu wadd sama tànk yi tissu yi ñu tegoon foofu ni ma sëggee fort tissu dama koo séen muy ñëw ak barre de fer mais ba tey xawma ma de fer bi barre de fer bi lu mu ñëwoo parce que sama yoon nekku ci histoire yaakaaruma woon ni sama yoon nekku ci histoire gis nga barre bii la ba de bi la ma dóor bii nii bi ma ko dóoree man damaa daanu piqué crise ba de fer bi la ma dóor sama bopp góor moo ma ko dóor teg si mbër la bi ma ko dóoree man damaa daanu piqué crise xamatuma histoire bi lan la dañ maa yenu yóbbu ma hôpital sama sama bopp bii nii moo nekk sama bopp bi nii photo yi moo nekk ni parce que instant yi sax ku ko gis da jàpp ni sax tane na ku gis da ngay naan sama photo yi lii nii tane na wala lii lu simple la mais ñi ma gisoon man avant ñoom heure bii dañuy yaakaar ne man suul nañ ma am na suñu bëri ñoo xamante ni dañ naan ana ki ki nga xamante ne moom la boppam bi lañ toj nañ déret bu bari laa perte ba si si jàmbur yi ma tëddoon dama koo yàq ñoom dañ koo sànni ñoom déjà seen musique bi sonal na nit ñi suñu rakk yi suñu rakk yi ñoom mënatuñoo jàng suñu rakk yi mënatuñoo jàng mairie feebar maire feebar si koñ bi dañuy jékki-jékki seen tension yi yéeg ñëpp a dee koñ bi maire desatu fi ñun xale yi ñun ñoo ngi ni ñun ñoo fi des léegi suñu bëggee jàpp dóor ñu ñun yàqal ñu suñu avenir mais bitig bi bitig bi moom ñoom ñëpp la waaye moom daf cee rawat ndax moom moo njëkk a moo ñu njëkk a déranger si ay musique kii soog a ñëw kon moom la ñuy gën a wax ñun daal musique bi suñu si mënoon jàppale moo gën sama bopp bi nag du ma si may dara dina ma si faj ba ma wér dina stop man xam nga fan laay mujjee mën naa tane jékki-jékki dara di ma daaneel wala loo xamante si ni leneen te mënumaa baale xëy suba dara dal ma su ma dara dalee samay parents ngi nii nit ñi seen loxo yi jotewuñu ki ma xaañ mi ngi police ba mi ngi foofu instant bi nii mais dañ ko yóbbu histoire bi jeudi la jeudi soir ay 18 heures moom boobu ba tey ñu yóbbu ko ma yóbbu sama médical cinq jours laa yóbbu boobu ba tey jii waxuñu lu si jëm ba tey lundi ñu soog koo jël ba pare di yóbbaale sama frère. parce que xam na ni sama frère boobu buñ ko yóbboo man du ma nangu sama deret di tëdd suñ nee ma arrangement lañ bëgg ndax luñ duñ jëlee lool da lay leer ni arrangement lañ bëgg pour arranger bàyyi li ma bëgg mooy nañ toppatoo sama bopp bi ba mu wér. ñu dimbali nit ñi may nit ñi jàmm ak salaam lijjanti seen jaay lijjanti seen bopp te bañu ñun suñu kër gii lañu am suñu bopp la ñu am lijjantiwuñ kuy jaay faraluñ ma sàmb faraluñ ma deema nag ku jaay sa poos nga koy dugal joxooñu ko jërëjëf kon nag euh, moom la ñu dóor euh, mooy euh, barre de fer kiiwu parasol bi ngeen wone léegi nii Euh, muy lu doy waar lañu naan ay bi yem ci bopp borom moo tax ku ko mën a moytu moytu ko euh, ma bàyyi la rek nga yeggale soxna si moytu koo tax euh, góor ma si àllarba bi ma bàyyi mu seet mhm. alxames góor saagama ma bàyyi mu seet ndax xam naa ni man nekk naa nit koo xam ne damaa naqay deret mhm. bugguma ci kenn 2006 laa sëy 2006 la daam juddu man 2003 laa sëy gisuma yaay gisuma papa sama yaay dafa gaañ sama papa gaañ mhm. sama yaay ci photo laa ko xam ne ñun ñeenti góor jigéen lañ amuñu góor sama yaay amul góor mooy am juróom benni bant sama jëkkër loxoom jotul ginnaawam sama jëkkër day garde place yëpp moo leen di ba ci bitig bi dóor sama doom mu yóbbee sama doom kaso tey jii sama borom kër leen di garde hmm. saa damay xew rek teg sama kër cin sax du ma samay doom bu ma amee sama ah, teraanga yow dëkkoo sama maam moo dëkk fii sa maam moo fi dëkk ay fii laay jaay fii laay amee sama teraanga dëgg la guddi ba guddi laay dugg si massa massa di fay mhm. sama doom di ma jàppale di sama doom tëj ci kaso mhm. tos tos sama yaakaar massa massa sa doom mooy euh, ki indi xeex mooy ki ki ngeen ne moom lañu fekk euh, di ko sot ba kii ku jigéen kii woote si ñu xar bopp bi ah kooku mooy sa doom mooy daam mhm. moom dañ ko jàpp moom dañ ko téye tey ndax ah tey lañ ko téye tey lañ ko téye bi kañ la woon histoire bi jeudi la woon jeudi passé ba tey euh, ba tey amuñu lu dul tey lundi commanda woo ma woo sama mag bi ndax amul sama numéro numéro sama doom la ko yaayu daam nañu wuyu si ak daam daam daay dem enquête sama doom daay dugg ci kii bi tey tey tey tey mu nekk loo xam ni wane na maa ne ma am na doole nag. mais ah, kii kii doo kii gaañ ñoom bi ñuy gaañante fan la ñu gaañante. sunu buntu kër la ñu fekk sama doom sama doom jéggiwul fekk leen ñoo jéggi fekk sama doom ci buntu kër maamam. boobu fekk na mu jaay ci kaw oto jaay oto patron la taxaw yi ci kaw oto bi di tàllal tisi yi si fekk sama doom ci kaw oto bi. Ah, ci kaw oto bi na ko wàccal oto bi sama doom ni leen du ma wàcc ndax oto bi sama oto patron la ñu commencé dóor. jarbaatu waa ji moo dóor sama doom pompa gaalis sama doom daanu ci xeex bi xeex bi sama doom nekk na waa bu dee lañ ko yóbbu ñu bind ko kii directement dalal jàmm ba ñu demee dalal jàmm fa laa nekk ba 5 heures. ah laataa ñu koy jàpp nii loolu yëpp am na ci. 5 heures defal ko rajo samp ko ay biteel bind ay ordonnance tey ji borom place bi bu jëlul woon charge pour faj sama doom tey man fan laa leen ma jëlee ma fajee sama doom. Hmm, ah fi mu doon liggéeyee ñoom ñoo nekk di ko. ndax borom pit bi balaa boutique bi daa daw dugg si biir kër yëkkati 20 000 francs di ko jox ne jël leen xale bi ngeen yóbbu ko hôpital ki liggéey ci bitik bi ne ko carrément sunu employé ñun ñoo ko yóbbu hôpital. Hmm. mer naa sama xol fees na ma. daw lii ah, uti ji leen seen kilifa ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo gaañ. ñoo gaañ dugg nañu ba ci biir kër gi ñëw pour ñu yóbbu ko hôpital. yëkkati na faj xale. Hmm. yëkkati 20 000 francs ne daf may jënd man ci 20 hmm. may téye xaalis boobu xaw ma ni woon sax moom dina ubbi biti boobu moom mi ngi am Milan man ba ma koy xam moom mi ngi am Milan man ñu toroxal ma toroxal sama doom sama doom. juddu na ba ni mu dugg ba ni mu musuma ko àtte xeex moom moom ay employé am ñoo ñoo dóor xale bi. ñoo dóor xale bi sama doom musuma ko àtte xeex bu leen tay am na ñaar fukki at si ren musuma ko àtte xeex si kaw suuf kii musuma ñoo kalaame ne ma daam tooñ na amul ndax jàng na alxuraan yam na ku ko gis danga koo fekk ba muy liggéeyee. bu wàccee di min bi lay wàcc kooku amut ak kenn problème sa liggéey ci kër gi bu xëyee man ak moom ñuy àndaat. ñibbi ñooy ñibbi bu wàccee maay toog xaar ko bu mu wàcc ñu àndaat ndax doom bu góor la ci man mooy sama taaw mm-hmm. ma ne moom ñu ànd bu dugg ci biir kër maay àndaat ak moom buy xëy si waam ki ñu doo baa de bi cousine am la. cousine am la. ñu dem déglu yaayam moom it léegi léegi sur la 7 TV ndax euh, yëf yi doy na waar jaxasoo na euh, naam nag euh, comme ni ñuy wax rek askan wi moo ñu tax a jog ku nekk ci jafe-jafe moo ñu tax a jog waaye nag du ma sàmba nii ma demba histoire la. bu am ay blessé yoo xam ne yu grave la barre de fer ñii mu ñu nekk ñoo xam ne dañ leen xaañ ci bët yooyu yëpp am ci euh, ñu ñëw tey jii déglu famille bi nga xam ne moo jàkkarloo ak ñaari boutique yi waaye exclure ñu li nga xam ne rek mooy euh, droit de réponse ñaari boutique yëpp ku ci bëgg wax ubbil nañ la suñu bunt ndax nag 7 bi ñëpp la fi nekkal te li ñu naan rek euh, tey jii du ñu ñëw fekk benn histoire am ñu daal di déglu kenn dem teg bàyyi ñeneen ñi ku ci bëgg wax wala ku ci bëgg a leeral loo xam ne leer na la ne yaa ngi ci dëgg dañ lay déglu dañ lay tàllal suñu micro déglu la euh, ndax nag lii nii li ko tax a jóg mooy tey jii xool ni nga xam ne noonu la ñuy wutee solution ci histoire bi waaye xool ni nga xam ne tamit ñi nga xam ne gaañu nañ ci noonu lañ leen di jëlee en charge kon nag dañuy dem déglu ki nga xam ne rek mooy yaayu euh, xale bi nga xam ne moom la ñu xar boppam euh, doo ko baar de fer ci diggu bopp gis ngeen photo yi léegi muy lu doy waar ñu dem déglu yaayam léegi-léegi sur la 7 bi daal de soit ci seen émission 7 voix du cœur nag histoire fekkee ma ko damaa jaay woon den bay soog a ñëw dugg sama biir néeg bee tëdd taaleku di noppalu nekkat histoire bi am na ci biti dëgg rek a neex yàlla yëguma lu ñu jotee maa ngi sama néeg di naan attaay di noppalu njëkk-njëkk nu woo sama ne awa sa doom dee ma tëb daane bra kaa sib toj ñu na may daw di génn mu dee xee sànni ma ko sama bët bii deret bi sang ma may sama bët bii deret bi sang ma ma daal di miir xamatuma fu mu ne talatuma sama ne sama doom rek laa bëggoon a gis aw ma oto bu ko yóbbu oto bu ma jëlee ba yaakaar sama doom ji dee na ma jël ko yóbbu ko ci saret mu yóbbul ma ko bu mu ko yóbboo nu xoolal ma ko fajal ma ko bindal bindal ma médical ba ma xëy laa bind médical di mu naa di ba muy dem médical mu laa di ni suba ga dem déposé ci ko police bi bu ma déposé sama médical ak samay photo ci sens yi rek médical cinq jours war ñu woon xaar kii def li sama doom dañ ko woon a jël si waaw jël si wuñu ko dañ ko bàyyi mu zibbale nu ko neexee mais daf may ñaawal continuer di liggéey di jaay chaque jour jël suñu ko jël suñu ko affaire bi dépassé ma ma déposé waat plainte police centrale xam ma ne dama plainte déposé woo fenn fee nga féetee ma ne parce que damaa déposé ñàkkal ma fayda bi ma ñàkkalee fayda moo tax ma ñëw fii fu ngeen dimbali ma te yàlla tax jaa sama sama doom laa yaa sama doom mi laa yaakaar ndax ni ñuy li dañuy liggéey di ma jàppale maa yor seeni rakk yi ndaw ay tout tànk yi jàng na ma ànd naa jël syndicat bi téye ma téye ko ne ma tey trois heures ba si convocation bi avant trois heures ñuy woo ma ne ma Awa Mbaye yow leen soxla démb ci guddi fekk boobu kii crise na ba muy bëgg a fànn ay bi démb maa yónni samay loxo di jooy dafa crise oon démb ay bi démb ñi ñëpp gis na ko maa ngi fànn ay bi démb ñàkkaat fa fukki ak juróom sama dëppoo tabaski ma bokkoon laa dem laaj ji faje ko scanner baa ngi ne ñëwunu mastawu ñëwunu dara du du ma euh, du du kiyam si kii bi moo ñëw ci sens yi yëkkati ay cent mille francs mais que 100000 francs mën naa ko liggéey benn bés 100000 francs jënduñu ma maa may doom su ma jëlee 100000 francs lekk ko xëy doy ëllëg sama bopp bom bi maa xam fu muy mujjee sax bu xëy mi ngi mu bu ñu ko gaañee bu mu daanoo tey daa war a delluwaat fan rendez-vous waaye lii moo tax dew ma fan rendez-vous ma am police moo tax dew ma ba ma kii woowee agent Thiam woowee na ma kaay wuy sama awa awa mbay ak maa Khadija mais ko instant tallu ma la instant talu ma ne ba ma déposé ba te faale woo ma li dindi sama doom a ngi faanu téye mu ne kon na ma sa rakk bi wuyu si ak doom su la demee nu téye sama doomu rakk bi léegi na man li ma bëgg man lenn rek laa bëgg su ma ko mënee am ki gaañ sama doom ma ne moom ba yoon yoon lu ma may ma jël waaye ki nga xam ne mooy borom boutique bi xam moo war a mbaboor gi na gis sama doom um, en charge ndax amul um. ma faje sama doom lu ma lekk laa tal ndax xaw fi mu mujjee ëllëg du ma jël charge na faj sama doom um, ba mu wér Oumou Melane nu mu meloon loolu laa bëgg man loolu laa bëgg loolu laa bëgg man bëgguma leneen sama doom laa bëgg mu Melane nu meloon. jërëjëf euh, kon nag euh, dégg ngeen ko euh, moom it ni ko waxee muy loo xam ne lu doy waar la ndax nag nee na xale bi démb rek dafa piqué crise. daa piqué crise. Mhm. yóbbu ko Fann bu ko yóbboo Fann ñu defal ko scanner ñu ne boobu daa am ay flectures ci biir mhm. te yaay xale bi tey jii amul moyen. papaam gaañu na yaayam gaañu na famille bi mag yi fi nekkoon ñëpp dem nañ day mhm. xale rek a fi nekk te amuñu moyen ku ñu dimbali. bi loolu di am euh, amul góor bu fi nekk. benn góor nekk fi ñëpp jigéen lañ. ah yéen jigéen kese ay jigéen kese lañ ay jigéen kese lañ. Mhm. ndax war na ne ne am na doole am na xaalis waaye ñun am nañ yàlla ak Serigne Babacar ñun am nañ yàlla ak Serigne Babacar. moom daa wane ni taalibe Cheikh la waaye gëmul Serigne Babacar. Hmm. xamut ak gëmul Serigne Babacar taalibe Serigne Babacar si du concurrence taalibe Serigne Babacar du wane ni nii laa mel borom daraja laa. Hmm. Serigne Babacar daal mais loolu loolu ñaari boutique yi la loolu seen concurrence la. Euh, man su ma sañoon yéen ngeen ñëw ci li nga xam ne euh, maanaam moo leen daal ci seen njaboot. parce que tey jii bu ñu génnee li nga xam ne tey jii yéen a koy wax maanaam yuuxu bi ci boutique yi bi musique bi kenn amul jàmm parce que musique bi munoo ne ma Samba munoo ne ma Demba boo koy wax tey ñaar ñëpp la waaw ñoom ñaar mhm. sama doom bi mooy fay sama mhm. mhm. ñoom ñaar bitig yëpp kenn mu amuñu si jàmm da ngay gis malaat boo xam ne day feebar barki de am na dese bu am ci beneen bitig bi ba ñu xëyee dañoo musique ki daa teg publicité am ki teg musique ci koñ bi ci koñ bi. mu am dëj am dese boo xam ne seen moroomu jaaykatu tisi la man maa jéggi man bitig bi ma war a waxal damaa jéggi dem ci moom na ko fayal sa musique na dese dafa am mu fay musique am ki nangu ta fay musique am police moom mujjee dem na ko fayal sa ñu doog a nangu fay musique am ñun suñuy doomi jàngatuñu te franco arabe mi ngi leen tiim xale yi di jàng seen yaay di leen fayal salaire. seen yaay xamuñ fu ñu jëlee fu leen di fayalee tey nga na tey jii yow foofu xale mën na faa jàng xale bu ñu wàcc lu ñuy def fecc xale dañuy war a jàng alxuraan bu ñu wàcc dañuy gën di fecc ci benn koñ mën nañoo jaay seen jaay simple yoonu kër nekkul maanaam loolu lépp li ko indi concurrence bu salte bi man borom place bi woo na ma téléphone direct ma julli ba pare mu woo ma direct na ma carrément daa am ku ñëw ba ci moom kon moom jàppal nañu en daa am ku ñëw ba ci moom na ko waa kër gi ñi lañ àndal ñu àndal ñu koy kenn yàlla suñu borom la ànd àndal hmm. ndax ñoom yëkkatiwuñu fukki dërëm may ñu yëkkatiwuñu juróomi dërëm may ñu joxuñu ñu vaal joxuñu ñu dara ñu dañoo teg démb doog a ñëw suñu maam bu jigéen moo liggéey këram gi jënd ko hmm. ba muy dee ci deewam dafa ne ku jaay sama kër te samay sa donnuñu yàlla bu ma la raw moo tax kër gi di dund ba léegi hmm. ñu fi toog ñëpp seen yaay dee na ñi ay jirim la ñi ay baayoo yow nga imaginer ñëw nga bëgg a toroxal jirim yooyu bëgg a toroxal bàyyi yooyu. Mhm. yow sa sœur bi sa sœur bi nga xam ne moom moo demoon dox ci jàmm waxtaan ci euh, bien avant histoire bi di am ba ñu indi ndaw mu baalu la ak mooy ki la saaga woon. moom tamit bu teg butigam dañ ko toj. butigam euh, sama sœur bi dañoo toj butigam. ki ñu xaañ boppam fa daw dugg. fa la daw dugg ñu fekk ko fa ak ay xeer. Mhm. ay këlem toj ay parfum yu mu jëlee Espagne toj ay dàllam. Mhm. lépp toj. Mhm. man sama njaay bi ma jaayoon jën yi ma jëndoon ginaar yi ma jëndoon mburu yeeg boolu verre yëpp toj mhm. dañuy dem déglu euh, suñu yaay jooju moom it euh, ci témoignage ndax nag moo ci njëkkee dox njekk dëkk ci wax lu rafet en tant que mag ci kër euh, dem ba ci ki nga xam ne rek mooy kilifa ñi nga xam ne ñoo doon histoire waxtaan ak ñoom ñaan leen njekk pour ñu bàyyi ay bi ndax li ñu naan ay du yem ci bopp borom comme ni niñ ko waxee lii rek ñaar ñoo xam ne dañuy concurrence ci seeni kàddu dañuy sukkandikoo lépp lu ma fi wax du sama kàddu seeni kàddu la ñun ci la ñuy sukkandikoo pour mun a wax li nga xam ne rek moom la ñu dund ñaari boutique yoo xam ne ñooy concurrence yëf yi dema dema dem ba ëpp loxo kon nag euh, doy na waar euh, ba tax na rek dañuy dem déglu suñu tata boobu daal desuwaat léegi ci waxtaan bi sur la 7TV fii sama kër maam la man maa ngi dëkkee ne ci wetu marché Xelkom bi ma ñëw ubbi fii place mais depuis euh, korité bi musique bi sax moo tax sama tension bi di yéeg damay ñëw su ma toog dinaa ñëw benn fan dinaa toog ay 3 jour du ma ñëw jooy nañ ko fu nekk nag fi mu ne nii mënatuñoo nelaw suñu doom yi jàngatuñu jàngatuñu école révisé maire yi am tension ku ci feebar da ngay dee ku ci am métti su bëñ doo nelaw du ñu nelaw bëccëg te ñoom dëkkuñu fi bu ñuy dem dañuy wacc seen jaboot foofu ak seeni i jabar ak seen i doom bu ñu liggéeyee fi xaalis bi ñuy jël dem yóbbul ñu ñu dese coono bi loolu ñu indiwaat ay problème ñaari boutique yi bu ñu bu ñu ñëwee di concurrence ñun suñu yoon nekku ci parce que tey bu fekkee ne tey jii suñu te euh, buntu kër gi nii ba ca ba ca station fi oto yi stationné foofu mairie moo ko moom su kee kenn ñëwee lal keneen ñëw ne man maa war a lal mairie lañ war a dem lijjanti ko mais waruñoo wax na ñun dañu am ku ñu faral ak ku ñu faralul ñun faraluñu kenn ndax kii moo fi njëkk keneen ki ñëw fekk ko fi kon ñoom xamante nañu yàgg na kon ñoom dañu war a xool ni ñuy def ñun suñu yoon nekk ci léegi ñoom ñu jël suñu benn doom ñu jël suñu benn doom waaw benn bu bu mujjee ñëw moo jël suñu benn doom mu fay liggéey léegi nag inde bi foofu la jóge saa e saa ñu jógee di jàpp xale bi di ko daggal ay saagay ndey di xale bi di ko daggal ay saagay ndey jàppal bàyyi man kële dem naa ba fi mu nekk ci këram barki démb ci guddi mercredi ma ne ko yow dañoo séq kóllëre ak jaam ngay jaam may jaam ñu séq jaam ba ma naan man xaw ma woon sax ndax waa kër gi da ngeen bokk ma ne ko fii sama yaay mooy taaw mais ñun dëkkuñu fi xam nga arrêté sa waa kër yi pour coow bañ a am mercredi laa ko wax loolu ba nu bal avant coow bi mercredi laa dem fekk fële ci magasin bële ma wax ko ko ma ne ko nañu arrêté moo gën parce que kii ñuy saaga ay ndey bi suñu dalee ci kawam coow day bari ndax ay famille lañu léegi yéen jéem leen a sax dem mairie boo leen demee mairie mairie dina ñëw daggal leen ku nekk sa place tali bi ñun suñu yónnewu tali bi mu daggal leen ngeen jaay moo gën mun a waaw suñu benn rakk yaay gaañu ma xëy dem ci dëj ba fii laa toog ba 3 heures ubbiwu ma ma man ah xaaral ma dem ci dëj ba du ma ubbi ma dem ci dëj bi ay 6 heures ñu woo na ne ma ñi ngi histoire ma ne man du ma dem ci histoire yooyu xaaral ma toog ma toogaan ba timis ñu woowaat ma ne ma sa place bi yëpp toj nañ ko mi ngi nii moo taqaloo kër gi waaw léegi ñoom bi ñu xeexee kii man maa ko yore kër ki ñu xaañ man maa ko yore sama kër foofu la toog ba ngoon mu ne day ñëw fii ki ñu xaañ dëkkul fi sama kër la nekk maa ko yore bi mu ñëwee fii dafa ñëw fekk daam mooy ki ñu gaañ noonu ki ñu téye te mu nekk ci kër gi tey liggéey ci ñële kooku la fekk ñu koy sot fii fekk waa kër gi nekk ci biir di naan attaaya mu ñëw yuuxu ne leen yéen a ngi toog waaye daam ñi ngi koy rey ci lañ waa kër gi mu daal di daw naat rek waa ji tempe affaire bi te fii la ko jëlee mooy suñu ñii di jaay fii suñu waa kër ñooy jaay fii seen parasol yi la sempi dóor ko ko fii mu raam bëgg a dolliwaat xaw ma ñu téye mais bu dolliwaatoon day dee ci la raamee dugg ci sama biir place ñoom ñu génn xeer yi dal ba tey dinduma xeer yi waaw sama place la waa waaw fii lañ ko dóore ñoom ña a jóge fële yi fekk suñu ba fii fii lañ ko dóoree ci buntu kër gi moom moom waa jooju mbër boobu moo jël sempi ko fii dina ko ko téel mu daan mu bëgg a dolliwaat bu dolliwaatoon day dee ci la raamee dugg ñu topp kook ay xeer moom nervi yi mu indi ñu topp kook ay xeer mu dugg ci biir place bi xeer yi dugg ci biir place bi nit ñi daw dugg ci biir place bi ci la ñu dindee sama bagage yëpp yi toj yi ñu sàcc ko yi jaxasoo place bi yëpp yàqu tele yi ñetti télé ngi noonu dama indi woon ay télé yëpp lañ toj ay sa mi ngi noonu ñu foofu de jël naa huissier woon def naa li ma war a def xam nga kon nag moom man ku may blâmer mooy borom place bi parce que moom dafa mel ni nga yor sa société rek yor say emploi wala nga yor sa kër yor say doom bu ñu bëggee def dara war nga ne teel a freiné boo leen teelee freiné kon duñu dem mais bu fekkee ne dëkk bi kumba ma am nday ak kumba ma amul nday ak garaat ak mboolem boobu mbubu bu diis du mujj fenn am naa xaalis am naa xame du mujj fenn loolu daf fiy jóge bañuñu ci lenn nag ba bañ ñun ñi ñu dina rey wala ñu ñuy tëj ñun ñëpp li ñu bëgg daal mooy justice na def liggéeyam mu leer naa ñu transparent daal lañ bëgg suñu doom ji wér parce que crâne bi ci boppam ah moo am ay fel yu suba dañu war a dem neurologie bu fa ndax démb dafa crise ñu dem Fann bi ñu demee Fann docteur bi yi ñu ko bindaloon yëpp daf ko daf ko annulé bindal ko yeneen na ma suba ñëw leen ngeen jël rendez-vous pour neurologie ñu xool bopp parce que bopp bi il faut mu kii te mi ngi nii armée la waroon def demoon ne ba yóbbu ay kayitam pour bu defee armée ba pare dem defi concours gendarmerie léegi kañ la koy def yàqu ñu avenir am ah injustice bi nekk ci bi dëkk bi daal moom la ñuy jooy daal moom la ñu bëgg lii dootul amati ba mukk ku am ndey ku ma am ndey daal na fi jóge te yaakaar naa ne nag dina fi jóge yaakaar naa ni nag dina fi jóge parce que tout lépp changé na yaakaar naa ko. jërëjëf euh, kon nag euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, moom it dox na ci njekk waaye nag li wax ba tey rek ay moytu ko moo gën ut ko ndax tey jii laal na ba laal ñoo xam ne amaana seen yoon nekku ci. Mhm. ñoom du c'est la première fois ñu def lu mel nii. defoon nañ ko avant beneen bitig hmm. du bi rek lañ ja def lii. lañu joteel lañ joteel. Hmm. moom am na ñetti bitig yi marché hmm. bi. nekk biir marché bitig bi mu dendal nii la defoon ak ñoom. waaw mais loolu ba tey rek mooy li ma lay sànq ba tey loolu ba tey ñoom la seen boutique la. léegi man mooy li ma la su ma sañoon ñu dellu si yéen li nga xam ne moom ngeen daal yow tey ànd nga ak sa doom ak sa doom moom concurrence na ak ma Masamba concurrence na ak ma demba concurrence bi salte concurrence bi am xeex ñu def si lii peut-être loolu yëpp après ñoom seen wax la. su dee ñoom dañuy maanaam am na ñu lu ñuy tontu ubbil nañ lañ seen seen suñu bunt numéro baa ngi noonu numéro bi ñu bind pour participer à l'émission muy la le 77 576 02 47 ku bëgg tamit leeral loo xam ne tey jii amaana ñun leeralu ñoom leeraluñ ko. ñun ubbil nañ la suñu bunt pour nga leeral léegi concurrence bu mu concurrence ak ñeneen ñoom la léegi ñun ñu ñëw ci yéen li ngeen dund en tant que jigéen kese si kër ñu ñëw am xeex am ñoo xam ne gaañ nañ leen ñu ñëw ci loolu sa doom tey suba bi mu ñëwee bi mu demee dañ ko téye. dañ ko téye waaw. téye nañ muy lu métti. defeere nañ ko. defeere nañ ko. mi ngi fan ni mi ngi tribunal. mi ngi tribunal. man li may wax mooy tooñ nañ sama doom. sa doom mooy kii nekkoon ci oto bi di jaay ñu fekk ko fa di xeex ak moom. toon nañ sama doom yeewu jéem na dalal jàmm convoqué wuñ ko woo nañ ma téléphone indi sa doom mu indi sama doom yi defeere sama doom laa ci am. biñ ko biñ la wooyee ne la indi ko biñ ko indee euh, a ñibbeeg moom ñibbe lan nga yëg. naa lu metti naa ni jour sama yaay di dem moo taxawaat ci man. massa bañ ma wanee ne ma kii mooy sa yaay. man loolu méttiwu ma yëg naa 2010 li ma dund woon 2010 moo ñëwaat ci man ndax boo maa ngi ëmb sama troisième doom sama yaay gaañ samay tànk loolu moo ñëwaat ci man rëppeel boobu moo yaay bi la téye woon bi ma téye woon ba sama yaay gaañoo hmm. kiñ ma tuddee yaay bi la jur sa yaay bi la jur moom nga wax ne si photo nga ko xamee si photo ko xamee ki ma yoroon moo gaañu 2010 le 6 sixième mois 2010 a gaañu le 29 loolu moo ñëwaat ci man ba ñu téye sama doom sama doom am na ñaar fukki at mosuma ko waate xeex ku la neex nga jël micro dugg ci koñ bi ba mu daj kenn xamul sama doom sama doom bu ko nit ñi ràññee léegi sax ah tisi bi muy jaay tax ñu ràññee sama doom te moom nekk fu woon sax ginnaaw laa la nekkoon ci turoon laa ko woon jox moom da doon jàng kayitam yàqu ci ay ñu jaayee xaw ma li ñu def ay kayitam bu kayitam yàqu mu ne ma yaay bàyyi mu ut ko mu am dimbali la ki koy jàngal. dama gis mu daan bàyyi jàng ma porté la plainte. koy jàngal la mu jàngal. lu muy jàng. franco arabe. dama gis mu daan bàyyi jàng ma porté la ndax xale bi gis naa ci loo xam ne ëllëg mun na dooni dara ëllëg waaye boobu këyitam yàqu na amul këyit mu ne ma yaay bàyyi ma dem uti lu ma la jox ba mu demee ci turandoom turandoom di ko liggéeyloo. yenn saa damay bëgg dara sax tóndoom du ko jox mu jóge foofu ba mu fay jóge neexuma ndax moom papa ma bokk benn bàyyi ci mu nekkoon mm-hmm. Mm-hmm. ma ne ko juglewu ma la fa de mm-hmm. sa papa la bu mettee sa papa bu naqaree sa papa la mu ne ma yaay damay ut sama avenir ma dama laa war a jàppale su soo ci kenn boobu yëgal na la moo waral ñibbi si waatam euh, marché bu bees ba ma kii di jëlee di may leneen naa ko liggéey dama ne ko mënuma laa liggéeyal waaye sama doom mën na laa liggéeyal ci laa yëkkati sama doom jot tey bu ñuy concurrence dañu concurrence borom bitig bi sama doom yoonam nekkul si mhm. mayuñu leen kër gi mairie moom mhm. mooy daggal sens public moom ñu daggale mhm. ndax ñun am ci dëkk bi imposé ma nag ne ma dinaa teg sa doom benn place maa la ëpp xaalis maa la am naa yàlla doom mi ngi ne tànk bi day metti tànk bi lu si ne dañ koo jam ci tànk bi dañ ko jam vert ah, dañ ko jam ci pot bi fii dal ci xeeb dañ ko rajo mooy kii kii nekkoon dalal jàmm. moom la ñu jàpp ni tey suba jàpp tey suba. indi ko këyit convoqué ko de ndax bu nekkoon dara tey waroon nañ moo indi këyit bu ne chef de quartier bi ñëw jóge ñëw ci man ma ànd waaye dalal la sax mën nañ leen téye pour arranger parce que tamit euh, ki ki gaañ xale bu jigéen bi tamit téye nañ ko. ki gaañ xale bu jigéen bi téye nañ ko. waaw mën nañ leen téye pour arranger euh, ba tey jii rek yow li ngay wax mooy euh, li nga junj sànq sa doom euh, maanaam seen doom bu jigéen bi bopp bi euh, laal na li nga xam ne rek mooy crâne bi euh, lan li ngeen ci lancer appel. tey jii lu ne mun na ko ci arrivé. Mhm. xamuñu yàllaa xam mun na cee perte mémoire mun na cee def lu ne ndax xamuñu ndax imaginer première famille yaa ngi dépassé si ay cent mille laal dépôt boo xam ne ci la waroon a xottil ay doomam ci la waroon a jënd ay xam doomam dem ba jël dépôt tabaskeem bi ci faj doomam. ndax xam ne jigéen dañuy bokk ay natt jigéen day bokk ay kaaf yaayam daa mujjee obligé xaalis boobu jeex ni doomam di liggéey ci géej campagne ci la yaayam laam man tey ba ma xëy damaa woo sam ki topp ci moom damaa woo patron kooku mu ngi ci géej gi 2007 la 2008 at safar la ki topp ci moom 2008 la kooku sax at mooy yeewal papaam xam tey ba mu yëgee si yaramam ni téye nañu rakkam magam daa ne woon day ñibbi si ma ne ko bu ñëw am yàlla yàlla bu ñàkk yàlla yàlla bàyyi naa lépp ci loxo yàlla su nekkee sama doom moo tooñ yal na ma yàlla àtte ki def sama doom bu nekkee sama doom da leen a tooñ yal na feeñ sama doom su nekkee sama doom da leen a tooñ na sama doom bu mu génn fee mu tëdd bu nekkee nag ñoom dañoo tàngal sama xol dellu tooñ sama doom yal na ma yàlla àtte ak ñoom na ma yàlla àtte borom bi teg bi ma teg firnde bii nga xam ni may nekk responsabilité événement tabaski ku nekk xam na événement tabaski yaa ngi dawal uti di xar yaa ngi daa war a xottali say doom lu yaas war a taxaw ci weeru tabaski boobu ñu indi la fitna gi foo koy jëlee ci koo xam ne sa borom kër day gardé weer ko woo ko téléphone enregistré am na enregistrement boo xam ko enregistré lu wax sama borom kër bu ma woowati damaa nekk ci liggéey la cinq day yoon war a fay sama borom kër day dem ak moom bala vingt dem ak moom bala trente am na boo xam ne ñaari weer la boole fay ko ko ci trente mille francs lay fay sama borom kër loo loolu mu xëyee jox ko sama borom kër yàqalu ko dara damaa dem mu obligé ne sama borom kër bàyyi bitigam nga des ak yàlla ndax moom doo nga yoru fi bitig am na bitig yoo xam ne balaa weer dee ma dem ci ñoom ne leen lii laa bëgg du ma ci teg baa dañuy yëkkati jox ma te moom mosuma koo def ndax bu weer dee sama jëkk doo fa man maay fayeeku man maay dugg ci bitig yëpp fayeeku ñëw ne sama jëkkër xaalis baa mu ne ma génn ci luyaas génn ci courant génn ci ndox lu ci des xoolal noo ko def ci ay bi kooku nga ko sonal ay doomam ci làmb. léegi euh, ma bàyyi la rek nga lancé appel pour sa doom. li may lancé mooy. ak histoire bi tamit nga lancé ci appel ndax mooy li ñuy waxee rek jàmm gën ay tey ji yàqal na la sa liggéey amaana yàqal na keneen ak keneen ak keneen liggéeyam. suñu liggéey yëpp a yàq. Mhm. àll ba ba léegi kenn liggéey kenn jaayut kër gi àll ba ba léegi kenn jaayut te suñu xëy ñu ngi war a versé ay projet wax dañ dañu ko jëloon ci banque sànq la ma banque woo dama kaas sànq lañ ma duma laaj seen fayu fan laay jël li ndax ci loolu laa daan jël di liggéey di xëy di dem di verser ji tey nga imaginer nga jël yaay jooju nga xam ne doon liggéey di dimbali doom tey yow yaay jooju nga teg nga teg euh, souffrance yaay jooju tey nga teg euh, foo xam ne mu ngi ci gudd gu bës a tëggut ku ko war a taali bitig yi ndax sama doom mi ngi liggéey ci benn bitig moom moo fi jiitu. Mm-hmm. sama doom di taxawaalu jëlu ko jëlu sama doomu liggéeyal ko. jàmbur yàlla jóge ci àll ba xaw ma ko te bu xam dee am moom laa njëkk a xam ndax moom moo njëkk a jox sama jëkkër xaalis mm-hmm. tey bu bëggoon sama doom liggéey ko dina ko liggéeyal mm-hmm. ndax bu ñëwoon ne ma sa doom laa soxla duma du ma soxor soxoruma ñaanuma dama ko yëkkat na ko am sa doom sa doom sa rakk ngi sa jarbaata ngi nii borom bitig ba mu ñëwee ne ma liggéeyal ma dama ne ko mënu ma laa liggéeyal waaye yor naa sama doom ju mag joo xam mun na laa liggéeyal mm-hmm. ba mu ne ma lu ma koy fay dama ne ko sa doom la sa jarbaat la kon tey jii yaa ngi lancé appel pour ñu bàyyi xale bi. pour ñu bàyyi sama doom ndax sama doom dañ koo tooñ jaay ko doole dañ koo tooñ jaay ko doole ndax amul wéeruwaay. Mhm. ndax baayam amul wéeruwaay. Mhm. yaayam amul wéeruwaay waaye man na am naa yàlla. jërëjëf. ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen masaw bu baax a baax ci li nga xam ne rek moo fi xew mbokk yi nga xam ne yéen nañu dab ñu ngi leen di fàttali euh, di leen wax ne rek euh, tey dañoo ñëw fii ci fi nga xam ne mooy géejawaay marché bu bees ñu ñëw seet si euh, famille boo xam ne dañoo nekk ci njàkkare naam néew doole lool waaye nag doon ñoo xam ne dund nañu lu métti métti métti loo xam ne fi mu ne indil na leen ay gàllankoor li ko indi ñaari boutique yoo xam ne ñoo dend dend bi ci li nga xam ne rek mooy jaayam tissu euh, concurrence bi xaw a metti lool lool lool lool euh, kenn ci ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci biir kër gi nga xam ne moo jàkkaarloog ñaari boutique yi euh, di doom ci ki nga xam ne rek mooy Ndeye Sow ah, mi ñu toogal tey doon liggéey ci benn boutique bi yëf yi indi histoire histoire bi li ko indi xuusuñu ci ñoom dégg ngeen ni ngeen ko niñ ko rek expliqué Euh, muy loo xam ne xale bi dafa yéeg ci oto bi di jaay tissu euh, ci li ñu wax ñu wàccee ko euh, yëf yi indi ay xeex ba am ay gaañu gaañu yoo xam ne rek yu metti la comme ndaw si nga xam ne tey jii rek bopp bi dañ ko xar muy cousine ci xale bi nga xam ne rek moom la ñu doon dóor loolu yëpp doon yoo xam ne rek yu doy waar yoo xam ne dund nañ ko muy famille bi waaye nag jamono ji ñu am ay blessures yoo xam ne euh, paj mi euh, dafa taggatémbe paj mi euh, metti na pañ mi jafe na ndax nag euh, fi mu ne nii euh, gisuñu koo xam ne tey jii mën na leen ci jàppale euh, ñi ngi ci diggante tribunal ñi ngi ci diggante hôpital ñi ñu jàpp leen ñuy nag lancé wàllu pour nag seen doom ji nga xam ne rek ci li ñu wax ci histoire bi lañ ko jàppee mu ngi ci kaso bi na fu mu nekk tribunal jàllaleeguñ ko ñaataat la am moom 2005 la 19 ans 2005 19 ans la am euh, muy xale kon nag euh, ñu rek euh, lancé appel njekk jàmm ci li nga xam ne mooy ñaari boutique yi ndax ci la njëkkee ndax nag tey jii am na leen loo xam ne bu amee amaana fa muy dem du la neex muy li ñu naan ay du yem ci bopp boromam ndax nag moo indi lii muy kër goo xam ne jàkkaarloo na ak ñoom ba ay bi ndaa di mujj ci ñoom ñu yàkk ci ay palaasu jàmb du ma ne ay sax palaasu jàmb boo xam ne seen sœur la gis ngeen place bi mooy bi ñu leen won léegi ne euh, kon nag euh, dañuy jaajëfal bu baax a baax Ndeye saw di la ñaanal xolu muñ di ñaan yàlla nañu bàyyi xale bi ci nu mu gën a gaawee waaye tamit yal na jàmm am ci ñaari boutique yi euh, ndax nag bu jàmm amee yéen ngeen am jàmm yéen yéen a jàkkaarloo ak ñoom lu ci am tey jii buñ doon xeex sax ñoom ñaar kenn ci seen doom bu ci bokkul mën na génn dara dal ci kawam kon nag ñaan li nga xam ne rek mooy jàmm ci ñaari boutique yi day gën a rafet kon nag ma bàyyi la nga daal di tàggoo police moo war a def liggéeyam. ci ñaari bi yi ñu ku nekk yam fa nga war a yam. ku nekk sa place ba nga war a toog nga toog fa. kenn bañ a fekk kenn kenn bañ a dem ci kenn ndax bu kii yemee ci place ki kii yem ci palaasam ay du ku ci nekk boo xamee ne wërsëg bi la suñu yàlla borom jagleel di nga ko lekk balaa ngaa wàcc di nga ko lekk. soo ko war a lekk doo ko lekk. bu nga koo lekk sax suñu borom ne la euh, tey guddi tey doo fanaan. Mhm. léegi la mooy problème bitig di dem juróom-ñaari mètre bi ka donga la ciy toog ak saraxale jeex na ñu jooy la ñaari fan pare nga ci kon nag ñun ñii nga xam ne ñun ñoo dëkk fii ci quartier bi pour suñu titre foncier suñu maam yor suñu titre foncier gii ñoom ña nga dëkk ci àll ba mënuñu ñoo may jàmm kon ñun duñu xanaa duñu gàddaay dem uti feneen ñoom ñoo ñu war a may jàmm ndax ñun ñoo ñu fekk si mënuñu ñoo fekk si ba pare indil ñu fitna gaañ suñuy doom ba pare jaay ñu doole su nekk ni doole kese lañ ñu jaay fii jaay ñun leneen lu dul doole la jaay loolu daal laay am lu may wax képp ku ko dégg nag na xam ne man loolu laay wax ñoom nañ ñu may jàmm ci musique yi ay malaatam ci koñ bi ay malaatan ci kër yi ay malaatan ci quartier bi kenn mënut a toog kenn mënut a tranquille da ngay wuy téléphone da ngay ci biir kër yi da ngay gis koo xam ne day àll ba ñu woyoo ko ci àll ba ci kaw kër gi lay daw dugg wuy ci pourquoi nit musique bi tamit nit musique gu tamit ngi jaay bitig bi ci ginnaaw musique gu tamit ngi jaay liy wërsëgal ku dal ku xam àdduna ku xam ak dëkkandoo mooy bitig bee ci côté bee hmm. ñetti place bitig a fi nekk waaye ba ca fooba kooku moo xam àdduna moo xam ak dëkkandoo hmm. kooku boolewul fukki dërëm bokkul sax ak fii sa doom bi liggéeyee dëgg la kooku moo xam li ak dëkkandoo hmm. kooku mi ngi musique te tànkalu koñ bi bañ na ko ba ay waa këram sax bu ñu yokk ni day dugg ne leen ay wàññi leen ndax kooku ci kàcc bi la dëkk moo waroon a musique mhm. moom ñu dëkk ci quartier am titre foncier ci koñ bi moo waroon a musique te musique ñoom ñu jógee ci àll bëgg ñoo rey pourquoi mhm. ñun loolu lañ am lu wax ku ñu préfet mën ne dimbali ci musique bi nañu dimbali ci musique bi mhm. ñun loolu la ñuy wax jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal moom Ndeye saw ñu jaajafal bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci eh, émission bi di jégalu bu baax a baax ci image yi nga xam ne rek won nañ leen ko muy lu xaw a doy lu métti métti métti di ñaan suñu doom bi yàlla na jóg ak jàmm eh, yàlla bu ko ci dara topp waaye di ñaan yàlla na ay bi fay ci nu mu gën a gaawee ndax comme ni ñuy wax rek tey jii eh, bakkan bu ci rotoon yaakaar naa ñëppay ñëw borom place bi taxaw naa mu taxaw mu ne ko mu ne mu ne bu ko jaralee bakkan jaral na ko maa ngi taxaw ma. du du duñ ci yegg duñ ci yegg peut-être tey jii loolu yëpp da ngay gis ne ay waxu maire day ñëw moo tax ñu naan ay dafa am foo xam ne tey jii bu fa yeggee dañ koy daal di fay ci nu mu gën a gaawee ndax nag tey jii boo meree peut-être doo contrôler euh, ki jël ku jël barre de fer di ko doonet amaana tey am na foo tollu kon nag euh, ñu jaajëfal bu baax a baax euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon teewlu di wax ne képp koo xam ne rek mën nga cee dox njekk ñu ñaan la nga dox ci njekk ndax tey jii na loo xam ne bu amee foo xam ne yegg na fa euh, loolu day daal di trop tard li tax indi waxtaan bi alerte bi mooy maanaam concurrence bi ni mu demee nii ba am yii blessure concurrence boobu mën na dem dem dem dem ba am li nga xam ne mooy maara dem si nit ku ci wàññeeku. ndax ku ñu dóor barre de fer suñu borom moo taxaw bu taxawul woon tey jii munoon na cee yem te bu ci yemoon ñi war a jóg ñëppay jóg kon balaa loolu lépp di ci am ñuy alerter di ñaan ñi ci war a dox nañ ci dox ñi ci war a jóg nañ ci jóg li ñu war a àtte nañ ko àtte ku ci nekk ñu teg la sa palace ku ci nekk li nga am droit def nga def ko li nga amul droit def nga daal di bàyyi balaa leneen di ci am kon nag ñu leen di jaajafal bu baax a baax lii moo ko tax a jox muy seen émission 7 voix du cœur euh, sur la 7 TV di jaajëfal bu baax a baax euh, Kébé Ndiouga Ali Chéri Anta Bayou Assane ak Mame Fama di jaajëfal bu baax euh, tamit Tamsir sama rakk ju baax jooju macha allah waa euh, Père loo ci wàllu logistique bi Serigne Sarr ñoom ñëpp ñi ci jàpp du ñu mos a fàtte waa production Papis Mbaye ak ñi ci ginnaawam yëpp waa montage Lamine Mbeng ak ñi ci ginnaawam yëpp ñu ngi koy fàtte ñu ngi koy euh, jaajëfal di jaajëfal ñëpp di leen wax fi amandi laa jàngeen jëf ba beneen numéro incha allah sur la 7TV